comme ni nga xam ni noonu lañ ko waxee noonu la leen ko waxee woon démb muy génn àdduna ki nga xamante ni moo di Makhtar Diagne ñu ngi doon ko mii lool ci Passepartout mu bokkoon ci ñu doon animé émission bi nga xamante ni moo di ci xalaas fële ci rajo Futurs Médias daan ci ànd ak ki nga xamante ni moo di Mamadou Mouhamed Ndiaye ak ki nga xamante ni moo di euh, Mamadou euh, Ndoye Bane ni ki temps yëpp nag ginnaaw feebar bu ko euh, terloon moo taxoon kenn dégg ko woon ci rajo bi ni ki ginnaaw bu mu génnee àdduna nag ni ki tey jii amal na du levée hôpital eh, bi nga xamante ne moo nekk eh, Dryhof eh, mbokk xarit am da jàmm ñëpp teewoon fa ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ay kilifaam ci wàllum liggéey bi mu rajo Futurs Médias indi nañ ay témoignages kenn ki ñoom di wéy daaw Daouda Diouf moom nag kànd yi la yëkkati pour ay témoignages yoo xamante ni demal na ko ci ki nga xam ne moo génn àdduna mu di intérêt daañu gën koo xam ci Passepartout Matar Diagne la tuddoon mais ñëpp pas-pas la nga euh, nag ndooy baan moo ñu ko indi moom moo ko indi moom moo ne ñëpp a ci moom la woon ku liggéeyam ku mu doon ñëw di liggéey mujj gi nag comme Mohamed Ndiaye waxee ne ko toogal mënatuloo dematuloo donc feebar bi sonoon na ko mais terewul même bu waxul ci rajo bi sax paas mu doon wut information xam nga heure Sénégal bokkul ak heure France Europe ak heure États-Unis waxtu bu nekk Fass doon ay xibaar yoo xamante ne da ko doon traité pour liggéey bi pour wala xarañ teg mu am ci liggéey bi boo xamante ne ku farlu woon ci liggéey la Futurs Médias farlu woon ci mbir muy sundu ndaxte bu doon alal rek mooy mooy tax Fass dem dem parce man li ma ci am ay xibaar yoo xam démb ak tey nay ma gis mu taxaw na ko rawat na Birane Ndour nga ñoom ñoo newoon ci léppam Fass sebar na respecté fonk Futurs kenn du laal Futurs Médias kenn du laal Youssou Ndour kenn du laal Birane kenn du laal Ndour Fall loolu moom dama doon si baaxam donc li ñu mën a def rek mooy ñaanal ko di koy moom euh, passe partout di ñaan yàlla fa mu jëm dàqal ko fi mu jógee moom sax euh, tey jii ci euh, buñ julli tisbaar ba noppi lañ koy denc ca Thiès ca sëkk yu Mbambara.